gannaaw taxal bi ñu bokk ñoom ñaar dal di ko xaatim mu di ñaari njiitu réew yi fi woon maître Abdoulaye Wadak kii di Abdou Diouf ni ki altine ji fukki fan ak ñaar ci weeru février 2024 doomuk maître Abdoulaye Wade bi di Karim Wad dal dal dina yëkkati kaddu ci jamono jamu déggee papam di maître Abdoulaye Wadak ak Abdou Diouf xamle ne waxtaan nañu téléphone lu yàgg-yàgg ak kii di Macky Sall ci lu jëm ci wàllum tolluwaayu réew mi rawatina waxtu mi rek ak fitna gi nga xam ne moom moo jëp ci ay kàddoom moom Karim Meïssa Wade mi doomu maître Abdoulaye Wade mune ne damay rafetlu bu baakha baax li nga xamne mom modi taxaway di bi sama wayjur bu gor am ak itam eh, ki di Abdou Diouf gannaaw ba nga xamé ne admiration la dal di am jëm ci déclaration bi ci bima ko déggé muy Abdou Diouf ak Abdoulaye wad ñu wax ak sen dom di Macky Sall ngir ñu dal di xol ñu def ba dal di mëna sauver li réewum Sénégal ci jamono jo xamné fitna gi jéggi na Karim Wad né woté gi nga xamné nak Abdoulaye ak ki di Abdou Diouf woté nañu ko dafa jëm rek ci walum jàmm dialogue mu di waxtaan ak itam fexé ba dal di réconcilier wat li nga xamne mom modi askanu ku Sénégal ngir ñu daldi mëna bolo doon benn ba su ko defé ñu gëna mëna sam li nga xamne noonu la ci réewum Sénégal mudi walum démocratie et té lolé ñun dañu ko wara sam bu baaxa baaxa baax Karim wad ba tay yokku ci né engagement bi nga xamne ñaari njiitu réew yewon ya woon am ko mudi Abdou Diouf ak Abdoulaye wad ngir mëna fexé rek ba daldi préserver li nga xamne mom modi di Sénégal lolé daf ñuy daldi won né kon ñun itam dañu wara am taxaway gu mot sekk ba mëna fexé rek ba li ñu mel ñu daldi ko wëyel ci jamono jo xamne nak gis nañu né Sénégal daanaka mbir yi jéggi na fa dayoo lool ci jamono joo xam ne fitna gi jolli na te la ko indi moom mu di report bi am ci élection yi waaye it nañu daal di fexe ba daal di taxaw ci anam boo xam ne dinañu daal di xeex ba am élection yu libre inclusive te ci itam daal di équitable ba mboolem ku ci war a bokk rek daal di ci bokk moom Karim Meïssa Wade fi mu jeexale ay kàddoom mu ne ci jamono ji nga xam ne nag réew mi daal dina jéggi dayoo lool ci wàllum fitna fu ñu xool daanaka mu ngi boy maa ngi jël su may njaal di ko jébbal njabootuk ñi nga xam ne kon dañu ñàkk seen jege ñaale gannaaw ba ñu leen faate ci jamono joo xam ne Karim Wade nee na ñun ndaw ñi dañoo daal di war a mën a boole suñu doole liggéey Sénégal ba su ko defee Sénégal mën a jëm kanam waaye it war nañoo fexe ba daal di moytandiku mbooleem rek loo xam ne day indi fitna wala mu mën a yàq réew mi ci jamono joo xam ne Sénégal bés bu ñu ko tabaxee dinañu tàggook ndaw ñi nga xam ne dañuy jël seen bakkan di ko tayle ci géej gi ngir daal di mën a uti ji leneen naka noonu itam wàllu manifestation yi indi musiba loole yépp mën nañu tàggoo ak moom ci kaw bu ñu nangoo booloo doon ci jamono joo xam ne moom Karim Wade nee na avenir Sénégal jeunesse bi la te jàpp na ne jeunesse boobee bu ñu booloo defub dànk rek dal ni nañu war a mën a liggéey loo xam ne dinañu daal di transformer lii di Sénégal te muy Sénégal boo xam ne moomeelu ko kenn ku nekk ci ñun la